la ci gën a fës basub tiis ca lycée Parcelles Assainies tey njàng amu fa gannaaw xeex diggante ay élèves ci am match football ba kenn ci ñoom ñàkk bakkanam Omar Mbaw jot na fa doxantu di nga ko dégg ci biir xibaar yi ba tey ci yooyu jàppante amoon na na foofee ca université bu ndakaaru ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay étudiants nag la ñu convoqué ca conseil de discipline ndax daal nee ñu jàppante yi fa amoon ñoom daal dañ cee laale. fukki tonne ak benn ci marchandise boo xam ne dafa périmé kenn waru kaa jëfandikoo lañ teg loxo foofu ca Thiès ñaari commerçant bokkoo ñu si doon jaay la ñu teg loxo Ousmane Sonko ne premier ministre ba woon bu Angleterre di Tony Blair ak Nicolas Sarkozy tam ne nekkoon euh, président bu réew ma France ñoom ñaar ñooy ñoom ñooy xelal président Macky Sall ci loi bu jëm ci soppi code pénal ak code procédure pénale njiitu Pastef nag ne ñoom ñaar ñooy dal di Nicolas Sarkozy ak ki Tony Blair ñoom ñooy faral di dé président Macky Sall ngir mu def yenn yi ñaareelu pàcc xibaar yi bitti réew dina ànd ak Georges Diop tàggat yaram ak Soda Cham yéen kay Mamadou Mouhamed Ndiaye waaye itam dana ci bokk ba tey gis-gis euh, sitting di ñaxtu boo xam ne ab collectif bu boole ay euh, jigéen daal yu taxaw euh, ngir daal ñu jëlee fi dañu sàkku xale yu jigéen ba sax soxna yi loolu nag ñu jàpp ne am na problème ndax daal ñooñee saa ñu taxawee rek ñoom seen bopp rek lañu fi nekkee wala daal ñuy faral di jàppale ay star ci wàll woowee ci technique bi Aliou Ba Yacine Pouy mën a ci digital ba salaamaaleykum Nasce de dalal nuyu Kumba Sandiane Faye maa ngi lay nuyu bu baax baax. Seydou Nourou ñu ngi lay fay. yaa ngi woon maison du combattant euh, ak euh, ñi fa nekkon nak ay ancien combattant tay dañu yeewu amal sen ñaxtu. amal sen ñaxtu dal di lak ay pneu fofé ci avenue Lamine Gueye bi li fa rek mausolée Seydi Hadji Malick seen siège foofu la nekké ñom nak li ñuy ñaxtu li ñuy laaj mom moy sen euh, pension mix nak noné di ñaawlu it puce yi nga xamantene ne nguurub Sénégal mu ko bëgg dem def rek ci lu ñeel soins yi nga xamantene ñom dañ koy. faral di amal loolee nag coow la loo xamante ni déggoon nañ ko fan yee euh, passé wante daal foofee euh, tàngoon na euh, policiers yi ñoom ñoo ñëw daal leen tas ñoom nag ñu nakkaarlu seen manifestation boobu nga xamante ne Euh, tas nañ ko euh, donte sax xamoon nañ ne kenn autorisé wuñ ko ndax dañoo xëy rek euh, ñëw di taal ay pneu foofee ñun nag bi ñu ñëwee ci bërëb ba loolee lañ fa fekk ñu bloqué circulation bi oto demut oto dikkul ñun sax taskatu xabaar yi wala hmm. man ma fa nekkoon ndax gisuma fay samay morom dañ ma xaw a pëmti pëmte xamal ma ne daal duñ fi wax ak benn taskatu xabaar police daal moo ñëw sax génne ma ci bërëb ba ne naa dem sama yoon dinañ ko dégg loolu ci son yi nga xamante ne naa ko amal. inshallah allah Koumba baté sax ci loolu la ñu des euh, ndax président association nationale euh, euh, militaire invalide yooyu nak mom dafa andul ci biir manifestation bo xamné ne ñoom ñoo di amal momi di Issa Gueye nag dafa wax né lu bëri lañ doon laaj jot nañ ko am lu ci melni ñu dal di woté projet bu jëm ci sen pension mix. mu japp né nak lool yëpp mu ngi ci yoon ki di Issa Gueye président kuréel bu bot militaire invalide fi ci Sénégal mu ngi ci jokkoo ak Fama Dione. damay wax né bu yagul lañu dajé le bureau national nga xam ne mu ëmb cellules yëpp les 24 cellules de de l'ANAMIS donc euh, ñu doon si waxtaanee assemblée bi ñu war a def le 27 sept novembre defaale si bilan bi nga xam ne ANAMIS tënkoon na ko si plan d'action décennal ñun ñëpp ñu ànd rafetlu liggéey bi nga xam ne autorité bi indi na si saafara muy problème yi posé woon yëpp depuis 2005 donc euh, ñu àndandoo ñun ñëpp féliciter l'autorité militaire, civile, particulièrement son excellence le président de la République donc loolu ginnaaw bi dossier bi nga xamné ne mu mujj muy pension bi jàllal nañ ko au conseil des ministres mu jogé ko dem assemblée ñu voté mu desoon promulgation bi ah mu dem finance pour la finance on a def ah, donc lolu bu desee je pense que li war moy and ak yar ah, xaar li nga xamné moy décision yi nga xamné mom la état jël donc dañuy ñaawlu même pas assemblée voté même pas deux deux semaines ñu mën a taxaw ah, na dañuy génne dañuy taal pëna kenn koo xam ne rafetlu ko du militaire du ancien militaire donc euh, jëf ju ñaaw la mhm. yoo xam ne bureau bi ma àndal ñëpp ñu ngi koy ànd di ko di ko ñaawlu que li ñu doon xeex depuis deux mille cinq tënkoon ko yàlla def na point bu si nekk rek eh, état indi na si saafara am na ay commerçants yoo xam dañ leen a teg loxo ndax dañ jaay ay produits yoo xam dafa daal di périmé fukki tonne ak benn lañ teg loxo fa ca Thiès di ay marchandises yoo xam dañu daal di périmé bokk na nag ci euh, ñi ko doon jaay ñaari commerçant yi teg loxo liñ nag teg loxo doon nañ ko taal ba mu jeex takk léeg-léeg Cheikh ginnaaw ñuy waajal feetu tabaski gi tax nag service di d'hygiène nag lëkkaloo ci ay yenn ci ay commerçant ak kuréel yi nga xamante ne ñoom ñooy way jëfandiku yi dugg nag ci marché yi doon xool nag boutique yi nga xamante ne dañuy jaay ñam yu bon ay commerçant yu bëri ñu teg leen loxo capitaine Idrissa Ndiaye mu nekk chef régional service d'hygiène bu Thiès. ñu nekk si fukki tonne ak benn yu ñu lal pexe bu njëkk bi maanaam ñu gën a taral saytu bërëbu jaaykat yooyu donc loolu moom moo tax ñu mën a am euh, produit yi ñu retiré dañu farataloon aussi si wàllum guddi gi ñu nemmeeku bërëbu jaaykat yi boo xoolee si diwaan Thiès bi daanaka daal daan ñu ko woon def mais am na ñu doon toog si si euh, guddi gi di jaay ay ñam tamit donc euh, si booru voie ferrée bi loolu aussi permettre nañu mën a saisir lu toll nii ñoo ngi gërëm population thiessoise bi yëpp ñoom seen bopp bu ñu gisee ni dafa périmé dañuy ñëw ba si service d'hygiène ñëw clamé ko fii Thiès ko jamono yi nag waa service d'hygiène jóg nañu kuréel yi nga xamante ñoom ñoo ëmb jaaykatu boutique yi nekk détaillant fii ci diwaanu Thiès ak way jëfandiku yi ñoom ñëpp nee nañ lii de lu baax la xaban soirée ak Siré Bale Diallo di sant capitaine Ndiaye ah, parce que c'est la première fois ñun ñu assister lu mel nii ay commerçants détaillants ñuy lakk ay produits périmés invité leen ci parce que ñoom ak service d'hygiène ak ñun nit du ñu ay noona ah. mais suñu gisee ni par exemple am na boutiquier détaillant boo xam ne mi ngi jalgati yoon ñu wax ko muta dañuy alerter service d'hygiène parce que ñun suñu mission la ñuy doxal ay tonu ñam yu sellul moom lañu ñu jël nag yóbbu ko nag ci àll bi fii doon ko lakk ci teewaayu ñi nga xamante ne ay kuréelu way jëfandiku yi la ak ñenn ci ay jaaykatu biti RFM Thiès Cheikh Anta Diop. juróom-ñaari simili moo tegu ci benn waxtu fii ci RFM. ak RFM kumpa jeex na. gannaaw jëye ji am ca lycée Parcelles Assainies bu unité 14 nag élèves yi foofee tey daal dañoo yow daanaka banque seen yoxo daanaka dara doxu fa tey ñaa fa li ko nag waral Euh, faatu kenn ci ñoom di Cheikh Bamba Ndiaye gannaaw daal ab xeex boo amoon foofee ci ab match interclasse ñu door ko brig mu jaax fa ñaar ñàkk bakkanam Oumar Mbow dellu na ca bërëb yi waaye daal ba mu fa yegte daal ñii di élèves yi dañoo bëggul sax yéy yàbb ci jëf yi

maa ngi ñëw maa ngi ñëw. ne ko ne ko bu ak El Hadj di indi ay seede ci moom. daanaka maa moom ñoo doon ànd ba fii nii sax ñoo maa moom lañu orienté fii si lycée bi foofu noonu di góor yi. Euh, ñoo ñoo ba ñu fii nii tamit ñoo doon ànd tamit seconde maam saa bu saa bu ñu génnee pause midi maam seen lañ doon ànd. ñoo nekkoon quoi ñoo nekkoon dernier moment yi ñoo doon joué mu may replacer di ma wax moytul coow moytul lii si dernier parole bi ma wax dafa ne. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waxal waa classe gis naa niñ mën ne moom mais ñibbi leen ngeen ñaanal ma loolu rek lu wax. Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye daal dina doddu bàyyi xaritam yi ci weetaay. tey wala suba buñ teelee jot si koor bi ñu engrais tey fekkee suba. RFM Parcelles Assainies Omar Mbow. ba tey jàppante yi amoon foofu ci université bu Ndakaaru kilifa université bi nag ñoom dañoo daal di convoqué ci ajuma ji lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay étudiants ca kanamu conseil de discipline. Euh, ñoom nag dañoo jàpp ne ñoom ñooy responsable euh, jàppante yi fa amoon euh, ci jamonoy élection amicale ci yenn faculté yi SAES nag naqalu bu baax a baax yenn yi di nag rafetlu yoon woowee nga xam ne rectorat jot na ko jël étudiants yi nag ñenn ci ñun daal jàpp ne lii daal dina tax ba ñu bëri am ci ay leçons Nafissatou Sylla lu ëpp ñaar téeméer ak juróom fukki étudiants taxaw ci conseil de discipline bu université Cheikh Anta Diop ñooñee sokki ko ci faculté de droit ak faculté des lettres ñu leen di tuumaal ay ñaaw ñaawteef yu ñu amal ci biir weeru juin wi ñu génn tey ji ñu war a tontu ci liñ leen di toppee mu doon doxalin boo xamante ne nag ñi di waa SAES e dañ koy rafetlu Malick Fall li seen secrétaire général. pour le moment li ñu mën a wax rek mooy ñooy rafetlu.

ces étudiants là. il faut ñu woo étudiants yoy ñu déglu leen ni ñu déglo professeur yi ndax ku nekk ci ñom amna na sa version étudiants yi tamit amnañ droit c'est ni version di ñaan dal daan bu mu am té même bu amé bu mu doon bu metti on les appelle pour les auditionner. ca noone sax étudiant bi ci boppam ne sanction naam mën na am waaye léeg sax mën naa bañ a war wante ba fii ñu toll nii nag amaana ñenn ci ñoom am ay jafe-jafe. mën nañ leen sax euh, bañ a daan artu leen rek ne leen li ngeen def nii du yoon te bu leen ci delluwaat ñaana lu ñu kenn sanction bu métti toog lu yàgg bañ a jàng moom baaxul kilifa yi itam war nañ xoolaat yenn sanction yi ndax day am njeexital ndax day am njeexital yu baaxul dara ci université université bi. ngir waa SAES e ak nu mu mënti demee rectorat si boppam dafa war a wane boppam. su fekkee ni lañ leen di tuumaal ñoo ko def ñu xool li nga xam ne mooy disposition yi am ci biir bu bees lu ci nekk lu mu méngoo ak rek mais mu teg boppam. espace universitaire dañ ko wara raxas natal ko ci anam yi gëna a rafet lolé nak di gëm-gëm bo xamantene sayes ak étudiant yu bëri dañ ko bokku étudiant yoyé nak japp ni gannaaw jàmmarloo yé war leena indil ay jafé jafé ci seen jang dañ ci wara jang lu bëri Nafisatu Silla ci sax lolé amical yi di étudiants yi lycée coalition yi lycée tamit di ay étudiants ñom ñoy oté ay waxtaan maanaam euh, ab rassemblement ngir dal jàppale euh, lu toll euh, ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci seen i ñooñ yi ñu convoqué ca conseil de discipline tey jilee ca UCAD tey nag lay am bu ñetti waxtu jotee ca rectorat ba ca corniche ouest nag ñu ñaan ñëpp daal dañoo fekkee boobu leen ndaje rawatina nag nii weteskoon xibaar yi di tam jaajëfal Binta Diallo ci xibaar bim ñu fii yeggee benn simili teg na fukki benn waxtu teg na fukki simili ak ñaar fii ci RFM RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. ñu waxtaane mbas mi ni muy yokkee di Covid 19 diggante weeru mi ak juin nag am na. Euh, ni mu yokkee daal daanaka téeméer boo jëlee juróom fukk ak juróom-ñaar la daal di yokku euh, ni mu yokkee na waral ba professeur Moussa Seydi nag euh, ne daal kilifa yi li ñuy wax defaat daal mooy fexe ba yokkat Euh, mesure yi maanaam jéego njaloon daal lu ci mel ne couvre-feu ak yeneen bu ñu ko bàyyi mu nag jàpp ne daal nañu gën a bàyyiwaat xel ci vaccin bi maanaam ñaq bi ngir fexe daal ba askan wi gën a aaru dinañ ci ñëwaat ci suñuy xibaar yi ñu dégg ba see sax Euh, lim yi ci euh, mbas mi euh, ci nag jamono jile diggante dem ak tey am nañu ñaar ñu ñàkk seen i bakkan ci mim réew beneen feebar di paludisme wala sibiru fii ci Sénégal ni muy yokkee tamit doy na waar ci atum 2020 nag gis nañu ni mu yokkee métti na lool waaye tamit ñi ci ñàkk seen bakkan naka noonu gox yi di Kolda ak Tambacounda ak Kédougou ñoom ñoo ci gën a loru coordonnateur bu programme national bu lutte contre le paludisme nag jàpp ne mbas mi génnu ci docteur Doudou Sène moom mu nekkoon tey ganu

mun na laa mat dem ci ka des mais ñi faatu tamit ci sibiru bi xaw naa yokk tuuti parce que daaw liñ ci amoon gis nañ ne gën naa yokku parce que li ko indi aussi mooy ñi am sibiru jàpp ne Covid lañ am wala dara toog seen kër bañ a dem ci structure de santé mun na expliquer lan moo tax ñu gaaw a faatu parce que sibiru différence bi ak Covid bi mooy Covid mun nga cee am ba wër ci carrément mais par contre palu tant doom doomu jàngoro baa ngi ci biir yaa ngi am risque pour nga faatu ci ba tax être loolu mooy expliquer ñi nga xam ne dañoo am yaram bu tàng toog seen kër dem na ba euh, indi lii nga xam ne mooy faatu yu bari situation yooyu tamit damay signaler le cas de Dakar parce que Dakar tay jii dafa bokk ci ñi nga xam ne su ñi ñuy faatu ci Sibru dafa commencé gën a bëri bu njëkk ba Kédougou Tamba Kolda fa lañ doon constaté ñoom seen bopp ñoo yore pratiquement feebar bi yëpp Sénégal waxuma ne amul feneen mais ñoom ñoo koy gën a bëri le ñi faatu Dakar li koy expliqué mooy Dakar ñu bëri toog nañ ay ati at amuñu Sibru mais wàcc seen loxo boobu ak ñàkk a takk sànke yi bokk na ci liy indi Sibru bi di mel ni dafay dellu siwaat nank-nank. ba tey des ci xeex lii di sibiru di paludisme nag waaye tamit euh, salte bi foofee euh, ca ngaan sayer ca Kaolack nag ndaw ñee daal di takku daal jël dogal daal fexe ba daal di euh, jëlal yëf yi seen i bopp li ci nekk nag li ñu def mooy poste de santé ba la ñu dem raxas ba mu set jël lépp lu fay salte génne ak yóbbu ko feneen ndax la ñu tàmbal dañoo jàpp daal nawet tàmbale na waaye tamit ñàkkub kaaraange ca gox ba daal waral ba ndaw ñi daal di gën takku Ibrahima Diame ci ay leeral Haynda Wongane jeunesse ba kon bootu ci mouvement bu ñuy duppee mouvement pour le développement de Ngane Sayer ñoo daal di jog taxaw seen quartier ci ndorteelu nawet bile pour xeex lépp lu jëm ci wàllu feebar bile di sibiru fiñ ko tàmbalee nak modi ci poste de santé ba ak li wër lépp lu nga xamante ne mën na denc yo ñu daal di koy dindi El Hadj Nguy Faye moom ci té mouvement bi ñuy duppee MDN. parce que ñu ngi ci nawet lañu jëm ñu ngi ko mois de juin juillet donc duggu nañ ci nawet te ku wax Kaolack dëkk yo ngay wax ñun nag ñu jóg anticiper ko jël suñu ay matuwaay li nga xam ne am nañ ko as néew ñu dajale ko ñëw lépp lu fi nekk tey ci mbalit fexe nañu jeunes yi fi nekk yépp jël nañ ko génne nañ ko taal nañ ko lépp lu fi nekk te ci saal yi soo duggee ci saal yëpp nettoyé nañ ko saal d'accouchement beeg salle de malade yëpp defar nañ ko ba mu set wecc nga nag mu ngi bokk ci quartier yi nga xamante ni sori nañ lool xolu ville bi ñu koy duppee quartier excentré waaye fii askan waa ngi yokk di dem tabax yi di gën a màgg wante nag fii ñàkkum lumière ak ñàkkum karange xaw na leen jaaxal lool walu karange gi des na tey soo waxee poste de police poste de police mu ngi nekk ba Ndorong tey képp kuy génn di dox ci yenn heure aussi yaa ngi nekk ci danger parce que wóorul parce que sécurité bi demee demeewul noonu lumière bi am na ci côté boo xam ne am na lumière am na côté boo xam ne aussi am na ay manquement amul lumière amul lumière amul dara donc génn fa dem fa aussi wóorul kon suñu ne am na kaaraange waxuñ loo xam ne lu am la kaaraange gi des na mouvement bi nag juddoo ci lu yàggul dara nekkoon na ci ñaareelu activité am ne moom li ko tax a jóg moo di soppi carrément di di nekk ci nungaan bañati toog rek di xaar mairie bi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias pour man RFM bi coow bi nga xam ne am na ci soppi code pénal ak code procédure pénale Ousmane Sonko nag joxari baaraamu tuuma euh, ka nekkoon premier ministre bu euh, Angleterre ay jamono di Tony Blair waaye tamit euh, kii nekkoon président bu réewum France di Nicolas Sarkozy ak ñeneen daal dañoo jàpp ne ñoom ñoo nekk ginnaaw bile loi ndax ñi mu lim ñi ñoom ñooy daal di dee président Macky ngir mu amal yenn yi ba ci.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 Mon mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme kooku au Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi mercenaire la léegi boo xam Afrique yépp day dem ñu koy ay contrat yu est nag conseil lutte contre le terrorisme Ni ma wax ñooy ñi nga xam ne tey ñooy xalaatal Macky Sall ñoom ñépp nag dañoo bokk ay intérêt waaye may wax ni principal problème Sénégal tey mu nga jóge ci ni ñuy tuddee France ak ay homme politique am wala lenn ci ay homme politique am ak ñi koy xalaatal ak ñukoy jëfël li lii ma tudd nii yëpp booleewu ma ci ñii nga xam ne nag ci ñoom seeni agent secret la ak seeni barbu suñ ne nee réel Massamba ñu rey ko tey am na ay société yoo xam ne ay mercenaires lañu te Macky Sall ubbil na leen buntu Sénégal depuis bi pétrole ak gaz xeeñee Sénégal ba léegi ñu fiy ñëw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 jox kàddu gi euh, presse bi ñu koy laaj muy tontu loole nag ndax am na li muy defar wala li muy yàq ci ni muy euh, communiquer Mouhamed Aliou Ba. lan moo tax Ousmane Sonko ci lu bëri déclaration rek lay def daw question journaliste yi la wala leneen la Adama Sow nekk journaliste nekk itam communicant. vision ne moom xëy na communication maîtrisée lay def boo xam ne daf koy sécuriser ba nga xam ne daf koy daf koy ñàkk moom dafa ñàkk communication mais ñàkk boobu en fait arrangé wul jeu démocratique bi ak médiatique Babacar Dione ne naam loolu am na waaye du Ousmane Sonko kese mooy defee noonu ci langue politique bi ba ci administration bi ñi bëri non la ñuy doxale parce que dès lors ñu am responsabilité rek dañu naan hee man dootuma demati débat woowal kenn wala ñu yone la seen i suq seen i suq euh, maanaam ki nga gëna am mu gëna reuy ci débat souvent député lay doon bu dul député doto am keneen donc loolu je crois que c'est un constat bu ñu am contrairement yow yaa ngi seetaan débat yi am à l'extérieur même France bi rek Hein? mais nga xol débat yi mais mais amul débat yu nga xam do gis ministre yi toog ci Sénégal amu fi ministre ministre demu ñu débat ben ministre nangul dem débat donc Ousmane Sonko je crois que ci logique bobu la nek mom la responsable politique sénégalais nekk. way nak bu ñu ci Adama Sow daw question journaliste mënul wéy ñak face à face bi mën na la rattraper. dinañ dem ba ci ci pandaw xam xamné wiri wiri jaari ndaari lay nek c'est-à-dire que un jour viendra il faudra à la journalistes, yi dinañ am accès ci moom laaj ko ay question comme ni ko waroon normalement bon malheureusement occasion bi mayagu leen pour le moment mais je pense que du ci mën a rëcc mu yéex il arrivera un jour Ousmane Sonko dina def face aux journalistes te dinañ ko laaj ay ay ay question

sorte que sax bu woté conférence euh, ces canaux euh, muy ak euh, presse bi tout simplement. nu ni syndicat professionnel de l'information et de la communication ñoo wara taxaw waxtaan ak politique yi mel nonu su ko nous ñu rappeler leen débat contradictoire nu mu solo ci démocratie. RFM bitim réew. Georges Dati Diop nuyu naa la. maa ngi lay fay Seydou Nourou. ñu wutali Niger bëri ay jihadistes yoo xam ne dañ daal di fàtt ca réew ma. ñiy def lu ni mel wala boog fu mu jógee moo di ay assaillants ay nit euh, ñi yor ay ngànnaay ñoo songoon euh, ñi dëkkee ci ab euh, village tendre ab embuscade l'armée ba ñu mujjee caa fàtt nag lu ëpp fukk ci ñoom leeral yeeg mu kalsum li. talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci booru juróom-benn waxtu ci ngoon waa Boko Haram nag nekkoon ci fukki oto ñoo daggoon yoonu. ay élément militaire ci yoonu di Difamene Sora congo ya nag mujjul antu ndax dakkader ya nekkoon ca yoon ya ñoo ko dakkal laata congo ya nag ay defkatu ñaawteef duggoon nañu ci benn bus attaqué ña fa nekkoon foqati li ñu yoroon buñ sukkandikoo ci communiqué bi bilan ba nag wane na ñeenti civil faat nañu leen chauffeur bis ba moom teg nañ ko loxo ñaari nit ak ki nga xamante ni mooy chef de village bi ñoom it jàpp nañ leen juróom benn militaire ak ñaari jigéen gaañ nañu leen buñ sukkandikoo ba léegi ci communiqué bi ci côté ennemi yi nag nag fukk ak ñetti terroriste rey nañu leen ba léegi ci li source bi xamle benn woto ak ñi nga xamante ni ñooy def ko ci ñaawteef yi ñeenti fusil AK 47 benn ngànnaay calibre 12 ak ay munitions l'armée bi nag teg na ci loxo jihadiste nigérian ya nag ña ngay gën di bari ci wéru mai bi ba léegi attaque ya nag ca région nigérienne ba nag bi nga xamante ni soriwul lool ak lak Tchad bi ma nga gën di bari njiitum réew nigérien yi nag di Mohamed Bazoum démb ba léegi ma nga fële ci dëkk bi ñu naan Difa ngir xool ñi nga xamante ne dañoo gàddaay ni ñu toogee. ñu wutali Centrafrique foofee nag euh, attaque bi fa amoon ca fu ñu wax euh, Ali Ndawo léegi nag xam nañ ñaata ñoo fa ñàkk seen i bakkan. ki yor kaddu casque bleu yu MINUSCA ne cong googee juróom-ñaari nit ñàkk nañ ci seen i bakkan ñi bokkee ci. Euh, organisation bi duppee unité pour la paix en Centrafrique ñoo songandoo woon altine gi ñu wessu ay point de contrôle naka noonu ay camp ay camp l'armée ba wayé wa casque bleu ya dañ leen mujjee puus bu sori dëkk ba lu tolok euh, ñetti kilomètres ci Afrique du Sud mom euh, njiitu réew ma seetal nañ ko Cour suprême ba moo jël dogal gu ni mel Cour constitutionnel ba euh, Cyril Ramaphosa dañ ko joxoñoon baramu tuma né waxul dëgg ñi nga xamanté ne di wa parlement ba jëm ci benn don biñu campagne électorale am ci atub 2017 ñaari at ca tegu woon uh, kii di défenseur public bi di uh, Busisiwe uh, Muheba moom mom woon ni Cyril Ramaphosa da koo tey juumal maanaam wax deug assemblée nationale waye juge ba dafa mujjé né mbir yi privé dal ci ay parti politique nekul ci compétence ay dépenses publiques ci Afghanistan lañ koy jeexee l'armée bu Afghanistan jox nañ ko base militaire bu Bagram RFI xamal ñu né ni euh, kilifa ci euh, l'armée bu Amérique moo ne troupe yu Amérique ak yu OTAN jogé nañ ci euh, base aérienne ba bi gëna reuy ci ca dëkk ba ajuma tay gi ni ma ñaari fan ci weeruk juillet ba bésub restitution ba ci l'armée delloo ko ci l'armée bu Afghanistan jappaguñ ko won jaajëf Georges. RFM Sport. Soda. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. da nga ko tàmbaleeg euh, bas waa Baye moom feeñ moom. bas mhm. lañ ko tàmbalee championnat national bu andi basket nak àjjuma ji lañ ko yemal. mu di jogante go xamante nak bu juróomi waxtu ci ngon jotee lay doon fele ci stadium Marius Ndiaye wara dox ci diggante ka nga xamante moko moo euh, niki édition gi wessu di Pikine Andi Basket ak euh, plateau waaye laata googu lay jogante nag dina am ben match de classement entre Thiès lay doon ak Mbour bu 15h30 jotee ba tey ci wàllu basket euh, lion yi nag ñoom daanaka pare nañu ngir mondial U19 euh, boo xam ne bu ñu ci seen capitaine. mu di euh, Moustapha Mboup turam la moom nga xamante ni nag ab joueur la fële ca US Wakam xamal nañu ni moom ak i ñoñamu équipe nationale U19 le am nañu yaakaar bu baax am way wu rafet ci mondial U19 googule ñu teewli kàddoom ci micro suñu en ci micro envoyé spécial groupe Futur media di Pape Mor ah préparation yi ça va ça se passe bien on est confiant en plus xam nañ lu ñu bëgg ko xam nañ fi ñu jëm te xam nañ lu ñu fa war a yóbbu so xam nañ suñu adversaire ba pare xam nañ seen ay potentiel quoi xam nañ seen qualité ak genre joueurs yi ñu donc ñun pare nañ côté yëpp pare nañ mentalement pare nañ physiquement pare nañ moralement quoi pare nañ si lépp parce que coupe du monde moom boo si bëggee genre tournoi yi mel nii boo si bëggee génn foog nga pare mentalement parce que soo parewul mentalement rek mooy loolu wala mën nga tase yenn équipe yoo xam ne que da nga leen xool ngeen nga xeeb leen alors que waaw e ay équipe yu kii lañ quoi yu baax lañ donc pare nañ mentalement pare nañ si lépp en plus suñu groupe bi li ma leen li ma leen di wax chaque jour mooy que ni ñu gën a rester concentré si li ñu bëgg quoi si but bi en plus ñu gën a waaw di récupérer bu baax gën a concentré wu waaw pare pour lépp quoi Sénégal mën na bokk si parmi les les quatre meilleurs parmi les quatre meilleurs je suis na parce que gisuma fi joueur bo xamné ne ëpp na potentiel joueur yi ñu am donc am nañ ay joueurs professionnels am nañ ay joueurs yi ne fi en plus retrouvé nañ suñu kii quoi suñu collectivité on est devenu plus collectif que que avant parce que au début on n'était pas collectif parce que boy xamante wuñu woon seen biir en plus dafa amoon expatriés yu ñëwoon ak yooyu noonu mais léegi puisque on a fait des jours des jours des jours ensemble donc on est devenu plus collectif quoi donc mën nañ yéegu fu sore sore incha allah. mu di Moustapha Mboup di capitaine équipe nationale U19 ñeel góor ñi tey ji ci suba nag ci euh, planning Euh, gaynde yu ndaw yooyu amoon nañu ñaari euh, euh, séance d'entraînement hmm. bu njëkk bi amaloon nañ ko ci suba teel si ak beneen boo xamante ni jamono ji ña ngi koy amal foofu le di wax tamit ni am na kenn koo xamante ni ci équipe nationale boobule dañoo wax ni dafay forfait wala boo moyut dina forfait mu di ailier bi di Fallou Gueye moom nga xamante ni nag pensionnaire la ca centre de formation bu Cefak bu euh, Thiès ñu xamal ñu ne rek boo deful ndànk ak gaañu gaañu gi mu am euh, dina toog diirub fukki fan ak euh, juróom wala lu ko ëpp. ñu waxtaanee football euro tey nag ñu amal quart de finale yi. quart de finale ak euh, ñaari euh, jogonté lay euh, don Belgique ak Italie di lo xamanteni japp jàpp na ni mom modi match faaru quart de finale yile ñom ñaar nak Sen jogonté gu muju ci Euro 2016 la woon waaye laata googu lay jogonté dina am bu saison jotee benen mu doora dox ci Suisse mi nga xamanteni ni éliminé won France ak ki di Espagne présentation affichée ak Youssouf Bodian mënoon na nek affiche finale euro 2020 digënté ñaari équipe yu yor attaque yu gëna xarañ ci compétition bi waaye Belgique ak Italie dinañu daje kon ci quart de finale yi kon kenn ci ñom dina toog ñaari sélection yi ba fi mu tollu ni ay jaar-jaar yu am solo lañu def Italie nek ci fanweeri match ak ben yu mu teglee kenn daanu ko dina jëm def lepp kon ba yegg ci demi-finale li mu gëjoon def depuis euro 2012 côté Belgique moom ba ci waxtu yu mujj laata kon ñuy siffler match bi ca Allianz Arena dinañu ñaan kii di Kevin De Bruyne ak Eden Hazard mën a wér eh, ngir mën a door match bu am solo bi waaye Martinez mën na compter tamit ci eh, Torgan Hazard di rakk ci Eden waaye tamit Romelu Lukaku dugal ñetti but ci phase de groupe ki seen kanam Mancini moom am na groupe am yep ndax ñi gañoon ñëwoon nañu ba des Giorgio don de sax commencé waat na entraîné mais ñu bari jort ni défenseur bi ba wéragul ndax dafa amone gañu gañu seen digënté que Suisse. Suisse momulé Espagne de dajal bu 16h jotee di quart de finale bu njëkk bu Suisse ci euro danaka bonus le ci Natango yu Shakiri yi match bu reuy seen digënté France ci huitième de finale yi. kon amul dara lu ñuy ñàkk ci karam équipe Espagne bo xamante n'ek na ñetti yoon champion d'Europe bi sax mooy guléet ñaari équipe yi di daje ci euro espagnol yi bi ñuy door compétition bi jafewoon na lool waaye bu ñu tolloo ci ñetteelu bëccëg bi ci lañ commencé yeewu wane tamit match bu rëy ci huitième de yi motax ñu bari japp ni Espagne moy favori euh, ci match boobule Luis Enrique sax ci conférence de presse bi néna gisul benn équipe ci compétition bi bu mën Espagne. Youssouf euh, Bodian kon nak euh, programme bi ni la tëddee tay ji bu 16h jotee ci Saint-Pétersbourg Suisse Espagne bu 19h jotee fele ci Munich Italie Belgique yenen ñaari quart de finale yi nag daañu ko amal niki, ëlëk 16h Danemark République tchèque ci Bakou 19h Angleterre Ukraine ci Rome lay doon ba tey ci walum euro ñu xamal ñu ni gannaaw nag bañ leen éliminé ci huitième de finale gi di euh, Toni Kroos moom dootul joué euh, ci équipe boobule maanaam équipe nationale bu Allemagne moom milieu de terrain bi nga xamante ni ay atam mi ngi toll ci fanweer ak benn nekk champion du monde atum 2014 moom nag xamal nañu euh, que ni dafa rek daal di jël retraite internationale am moom Toni Kroos sax xam ne ni dafa jëloon dogal googule ngir arrêté bu ñu noppee woon ci tournoi gile hmm. joueur bi nag la mu xamle itam bokk na ci moo di def kem kattan maanaam ba mbëbët yi nga xamante ni euh, moom la si la soobu ak euh, clubam bi di Real Madrid mu daal di antu wala mu concentré ci sax ci at yi ñu jëm. xaw nag fanweer ak benn sax ko bëri noonu yëpp. ñu wutale beneen quart de ci beneen compétition di Copa America tey ñoom yamba tamit quart de finale foofii. ci Copa America bi nag tey ji bu 21h jotee diggante Pérou lay doon ak euh, Paraguay ñëpp sax jàpp ni que ni Paraguay moomee moom mooy favori ci googu lay xamante ni nag moom eh, équipe ba ñëpp doom daw mom la dajel mu di eh, brésil mom lay daldi fekk ji eh, ci dëkkam brésil momé nga xamante ni jamono ji day def kem katanam ngir rek daldi défendre titre am Seydou dañuy daldi wax touti rek ci rugby ak kan U20 bi la jigen ñi suñu gaynde yi jigéen ñi nak dañu amal seen ñaarelu jogante seen diggante ak Madagascar lay doon ni suba bu ci samedi gi bu 10h30 jotee lu jëm ci kan senior yi maanaam ci góor ni ñu mag ñi Sénégal itam dina dina daal di euh, amal jongante ak euh, waa Kenya bu 13h euh, jotee ñu fàttali itam ni kan senior googee nag mën nañ fa nañ mën a jaaree ngir am seen ticket gu leen di yóbbu ci éliminatoire ci mondial France 2023. jaajëf Soda Thiam. RFM nit yi yéen Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout di may seen revue de presse NSIA assurance santé famille wéer wéerle samawona Marseille créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gam Opalia seen cuuraay raktak bi rey ak USAID break Action ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf département bu Amérique gëstu bu mu def jëmee ko ci doomu aadama yi ñuy jëfandikoo ci lu doonul seen coobare di traite des personnes l'observateur nee nañu li ñu ci gisal réewum Sénégal dara ci rafetul. tribune yéenekaay bi rapport ba nee na trafic sexuel gu réy moo am ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau te li ko tax a am doole loxob diplomate yi génnuñu ci gis nañu li ñu naan tourisme sexuel ci diggante Ndar Ndakaaru ak Sigicoor gëstu bu département d'état bu Amérique bi wax na ne bari na ay tubaab yuy bàyyeekoo Europe di wàcc Ndakaaru Ndar wala Sigicoor te dara yóbbu leen fa lu dul tourisme sexuel xale yi ñuy badd ci mbedd mi ñuy tambang-tambangi guddeeg bëccëg di yalwaan ci lu dul seen coobare rapport na ci ba wax ne gone yooyee ñuy forcé ñuy yalwaan ñoo ngi toll ci téeméeri junni xale ci réew mi benn xale bu rey moroomam moom la sur journal Tribune xëye nee nañu jëyee ji mi ngi amee ci lycée des Parcelles Assainies ab élève troisième moom la fa benn morooma élèveam dóor mool ba mu jaara ca faatu lépp nag ci ni ñu ko Tribune nettalee mi ngi tukkee ci max interclasse bu ñu fa doon def las ne kay nañu élève bi ñu dóor mool mu faatu mi ngi nii Cheikh Bamba Ndiaye la tudd journal las gis ne fitna ji mi ngi bëgg a sëxin ci lycée bu Parcelles Assainies ndax am na fa ñaari xale yu jigéen yu doon xeex ba benn xale bu ba jël paaka jam ko morom mi Vox Populi nee nañu général Moussa xalaatam ngir mu jóge fi Moussa Fall di général bi ñu takkal bu yàggul garaat bu haut commandant de la gendarmerie nationale démb ci la ko jébbal lengey ngir mu doxal waaye teel naa wax fa mu jëm général Moussa nee na fu ordre républicain amul sécurité ak liberté mënu fa am libération nañu moom général Moussa ba muy wax démb wax na ne dogu na ci waggar ci lu mu mën ci intérêt Sénégal lise ko nañu yamu ca avertise na délinquant yi avertise wëyu yi ak ñiy dox ci njubadi sàkku it bu nekk foo mën di toll na ngay respecté doomu aadama bi respecté ay droit am respecté yi moom njiital gendarmerie ginnaaw bi ñu ko installé démb monté na garde xaat fitna ju ji ñuy nimmiku ci dëkki taax yi dëkki kaw yi mbirum cybercriminalité càccum jur gi ak ñuy dugg ci àll bi di gor garab yi yóbbu ci lu ñu tegul ci yoon di coupe illicite de bois yi bokk na ci mu fas yéene jëmbat yite xam la ne it ay section recherche yu ñu war a taxawal ca Kees ca Tamba ca Sigicoor ak ca Kaolack njiital gendarmerie nationale ba tey ci xët mu njëkk Soleil national waxi démbam ji ordre du jour numéro un la ko yéenekaay bi tudde ba dolli ñu ci ne bëgg-bëggu moo di fii ak 2025 yi ci réew mi lim dem ba mat ñaar fukki junniy sàndarma nee na ci li ñu naan retenue ak discipline militaire bëgg na képp ku dib sàndarma nga di ci dox nañu bàyyi sàndarma yi dox dem ci la témoigner ngir wax ci magistrat yi yi di dund la xëy di leeralal ana ko sooxe wax nañu ci xët mu njëkk ñaar benn moo di loxob nguur gi ne lëjj ci dossier judiciaire yu bari ñaareel bi di réforme bu yees bi fi indi ak loo ci retraite gi loi bi ñeel futur code électoral bi source a daanu ngir war koo promulguer laata ñaar weeru sulet 2021 moo di bu weesoo àpp boobe te promulgué wu ko dafay teggi waxi CEDEAO yi si du côté dinañu wax ji kay moo di Macky Sall fan la mën a jaar ak it nan la mën def ba élection locale yi ñu jëm ñu amal ko ci binyo bi ñu ko di jëpp anki dina kay bind nañ ñi fare ci opposition bi ñoo ngi ci ay mathématiques yu rëy dina saka nocc te coow jibal lépp batahol ngir bëgg a fexe ba taxawal ab liste unique ci élection locale yi ci jamono ji nga Khalifa Ababacar Sall fexe na ba waa Front Résistance Nationale jox ko bopp kii di Ousmane Sonko momit it na ba tëyee MDD te ñoom ñaari kilifa yooyee amna na ci ñenn ñu leen ñu xamal enquête dina kay na ñoo ngi waxtaan ngir mën a taxawale ab liste commune yi bande de filao ba ca géejawaay suuf sa nekk libération nee nañu waa impôt ak waa cadastre danañu ko jeexal ñoo ngay saax-saaxee suuf sa di ko caxat-caxatee di ca ndaataata lax lu ñu mën jëral xët mu njëkk yéenekaay bi coopérative bu agent yu cadastre yi dagg nañu fa juróomi hectare jël te loole ñoo ngi ko def depuis ñaar fukki fan ci weeru mai 2021 nga xam ne booba site ba sax kenn déclassé gu ko woon syndicat yu impôt yi ñëw ne leen du ngeen ñu ko dàq ñoom it dem ca wàqi naan nimsaat jël fa ñeenti hectare dem ca golf jël fa ñeenti hectare hectare dem gaday jël fa juróom hectare Sedima mi di jaglel sen aliment bétail jur gi ladum ak jur gi tout ruminant may sen revue de presse. NSIA assurance santé famille weer weerle Samaouna Marseille créole kinkeyri AAD Abdou Alima Diop sen gam Opalia sen touray raktak bi rey ak USAID Breakthrough Action ñoo may li ci yéenekaay yi. gis-gis. yegsi nañ ci gis-gis gannaaw ba ñu jaajëfale Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi ci ligne bekk Issa Ndiaye di formateur conseiller en travail social ca NTS maa ngi leen nuyu Issa Ndiaye. waaw bonjour Mohamed. Seydou Nourou jërëjëf. Ah, bonjour Seydou. merci beaucoup ba tey tamit ci ligne bi ak euh, Maymouna Astou Yade di présidente Jigéen Sénégal bokk tamit ci euh, kuréel euh, yi boole ay soxna daal yi takku ngir ñu jox leen li ñu moom ci wàllu xeex daal ñu ngi ci ligne bi ak Maymouna Astou Yade maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Seydou Nourou maa ngi fay bu baax. jërëjëf yow sax xam naa la ñu tàmbalee ndax yéen la gën a soxal maanaam euh, ëllëg euh, am na ab sitting dox ñatu daal boo xam ne boole na euh, ñiy yëngu maanaam ay yu yëngu daal ci. takk ba dëgër ngir ñu jëlee fi yenn coono ñu teg soxna yi di leen dóor ba sax ñu leen di sàkku ndax jàpp nga ne tey jilee seen xeex yi ngeen yàggee xeex ak ba ba mu tàmbali tey am na li mu jur. waaw Seydou Nourou jërëjëf am lu mu ndax euh, loi sur la criminalisation du viol nga xam loi bi nga am ci droit des femmes cest naa ça veut dire que ne li jigéen ñi ànd booloo doon ko xeex def na def na résultats Euh, ci la bokk. Mhm. mais dañu faral di wax daal yéen euh, seen xeex wi daal daanaka euh, ñi ngeen di faral di taxaw mooy ñi leen gën a jege maanaam bu dossier yu ay star amee ñoom ngeen di gën a taxaw wala ñi leen gën a jege daal pour rek ngeen am bës ndax itam loolu am na. loolu defe naa ne nit ñi ñu ngi koy waaye defe naa ne loolu du lu nga xam ne moom moo wér. Mhm. ndaxte bu ñu waxee ne dañu ci suñu wàllu liggéey dañuy def li naan un peu benn approche sélective. defe naa ne demeewul noonu ndax tey ki nga xam ne moo am alal ki nga xam ne amul alal ki am doole ki amul doole ku ci mun munti nekk ñun ñëpp ay citoyen lañ donc képp koo xamante si ni euh, am nga loo xam ne mooy comme viol tegu na ci sa kaw am nga droit am accès à la justice donc c' pas sélectif dafa fekk ne rek xëy na soo gisee loolu bu amee ñu gën a jukk gën ci ñaaxaat tamit du may wax rek ne bés bu yàlla sàkk. ñu hmm. ci suñu ay plateforme hmm. ay cas de viol yoo xam ne am na même ci ay dëkk yi nga xam gën a hmm. te dañ koy relayer. parce que yéen journalistes yéen a koy joxe ñu di ko relayer. maa ngi ñëwaat

signe yi nekk ci kaw la par exemple ku sibiru bopp bi di metti ak yow nga bëgg a faj loolu te dugguloo ci biir ba xam jàngooro bi manaam lan moo ko indi pour dindi loolu ñun loo yooyu lañuy def recherche fii am ay am jumtuwaay yi yu xarañ yoo xam ni dañuy xóotal te duñu xo duñu dem beneen boor dañuy xool boor yépp mm. ñaar violeur bi ak violet bi ak société bi ko wër. mais est-ce que les léeg di ngeen jot ay li nga wax léegi violeur ak violeur tam c'est important parce que dañu faral di wax juste violer. Mm. violeur ak violer mais est-ce que yow it da nga jàpp ne léeg di nga di ngeen jot ay nit yoo xam nañ koo dund ngeen leen di conseiller. waaw parce que liggéey naa juste bu Serigne Mor Mbaye. Mm. là-bas c'est c'est dédié carrément aux violences aux viols euh, faits aux femmes et aux enfants. Mm. donc dañuy jot carrément ay victimes. Pour vous de, de, justement d'intervenir si les, les, les traumatismes yi hmm. par rapport à ça di parce que c'est bien fait de nous dañu un partenariat avec AGS avec euh, tribunaux commissaires, commissaire tout ça pour aussi accompagner les familles nous porter plainte donc pour mën dem à la justice mën faciliter aussi papier preuve yi nga xamni sage-femme ñoo koy mm. pour faciliter ko dañ même gunge xalé yi ba fayal leen certificat médical bobu mm. pour que ñu mën porter plainte mais rencontrer nañ ay résistance yu bari mm. da ngay gis ko xamni doom dañ koy violer mu bañ ni du ko déclarer ndax day sauvegarder CM ya wi le problème culturel bi nekk si ginnaaw c'est un problème lol mm-hmm. le problème la le problème bu mag la mm-hmm. nga gis euh, koo xamni day téléphoné ni dañuy violer rakam mu ni day porter plainte. Mhm. donc jox ñu numéro téléphone am après il disparaît. donc ko fenn. wa nga xamni kon amna na lu agir si kooku. Mhm. ba mu retirer wu. peut-être benn pesanteur social bu fa nek lol lol ma lay victime mhm. finalement ñoom la ñuy sacrifier. maintenant heureusement que association ñi ngi fi pour les défendre. mais défendre bi doyul. so xolé la loi a été corsée loi bi dañ ko corsée. maa ngi ñëwaat sax ci ci ci loi boobu ak yow damay joxaat kàddu gi euh, soxna may mun a astu yàdd li ma bëggoon laaj sax euh, soxna si mooy vraiment da ngeen di jóg ngir jàppale jigéen ñi ndax yéen ay ay ay soxna ngeen mais que tamit yéen a ngi xalaat léeg-léeg euh, maanaam boo leen déggee ay cas de ba ngeen xam wala bañ buñ joxaree baaraamu tuuma kenn est-ce que yéen tamit di ngeen dem ci kookee laaj ko yëf ni mu demee Mm. loolu du suñu liggéey parce que du ñun ñooy dem ci moom mm. di ko laaj ndax mbir mi am naak amul parce que mm. mbir mi fa ñuy waxee am naak amul loolu nangu noonu la parce que tamit da ngeen di jóg rek ngeen dem manifester parce que euh, parfois aussi am na lu ñu wax ay viol imaginaire euh, ñun duñu duñu jug rek manifester parce que on ne procède pas ainsi suñu suñuy manifester dafay fekk mu am ci lu mu tegu xëy na kaawu Louis bi dafa ñëw nekk kaa boo xamante si ni dafa dafa dafa dafa dafa peut-être moo gën a am Euh, tolé hmm. mais euh, suñuy def ay action dañ koy def dans un cadre collectif Hmm. maanaam dañuy xool lépp li nga xamante ni parce que boo xoolee tey am na viol yu bëri yoo xam ne am nañ fii la congolaise également qui a été tuée. Hmm. même fekkee du viol. Hmm. mais agression la sur. violence la en tout cas. Euh, voilà violence la en tout cas. donc ci loolu la ñuy tënku moo tax même ci suñu ay support de communication dañuy def de telle sorte que suñuy wax ñu yóbbaale baax bépp victoire. mais duñu du du lu bu fekk loolu du tax ñu mu nekk lu sélectif. est-ce que dégg nga dégg aussi léegi li kii wax di Issa Ndiaye mën léeg-léeg da ngay gis ku ñu violé dem ba si biir ñu xëti dossier bi seen waa kër ne baal nañu du genre est-ce que si loolu boo amee yéen ban taxawaay ngeen di am waaw xam nga loolu mooy li nga xam ne moo gën a métti ci suñu wax mhm. te professeur wax na ko léegi mhm. ndax tey le silence des victimes silence des familles dafa nekk loo xamante si ni li nga xam ne moo gën a diis ci wàllu traitement de viol mhm. te loolu wax naa defe naa ne ñëw na ci français bi mooy que ne loolu yëpp c'est parce que dafa am pression sociale boo xam ne cause profonde la ci biir mais ñun dans tous les cas xam nga tey bu fekkee jël nañu dossier ko devant le juge ñu ñu wala wala famille bi nga xam ne ñoo porté plainte dem nañ ba gëllu ginnaaw wala famille bi plainte hmm. ñun suñu action dafay limité suñu action fi limité accompagner victime bi ba am na koo xamante ni moom mu décider de porter plainte wala mu bañ a décidé porter plainte hmm. donc bu porté wul plainte xam nga mënuñu koo forcer ne ko di nga porter plainte hmm. donc loolu aussi il faut nit ñi ñu xam ko donc ñun suñu rôle c'est être du côté des victimes maanaam taxaw ci nga xamante ni taxawu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo nekk victime de viol yi hmm. taxawu seen ay familles mais également boole ci wàllu liggéey boobu ñun li ñuy wax sensibilisation ak plaidoyer très bien pour que ñun aussi suñu wàllu liggéey état bi yëpp ko xam ne tamit ñu ngi topp loi yi ñun ñu ngi topp loi yi te defe naa ne loi sur la criminalisation nga hmm. xam ne moom la ñu mujjee wote ñu koy topp bu baax a baax a baax hmm. ba tax na tey jii ngeen wax ak AJS pour mu jox ni tout temps statistiques yi par rapport ak cas de viol yi mais également cas de viol yooyu bu ñu ko yóbboo devant les tribunaux nan la ñu mbir ma hmm, par rapport ci Issa Ndiaye sax mi tam lañu wax ci loi bi maanaam yéen euh, professeur loi boobee euh, bañ naa ngeen ngeen ci am euh, wala est-ce que am ngeen yaakaar ne vraiment dina mel ni mu war a mel ba yëf yi même bu fu jegewul tax mu wàññeeku ba ñu wàññeeku na malheureusement yaakaaruma mu wàññi ko xool nga li ñu constaté mooy dafa yokk hmm, hmm. waaw hmm. parce que pénalité dafa xaw a sori nit ñi la approche pénale day sori après approche sanction day sori parce que da nga war a jël en compte approche sociale bi aussi approche de contrôle social nga xam ni production euh, délinquant yooyu di violer te production yu ko indi mais da ngay agir ci production bi pour wàññi leen su ko defee viol bi day wàññeeku Mm-hmm. mais soo xoolee bi ñuy defaree loi bi corsé ko ba léegi mais viol yi dafa mel ni lu yokkuwaat. Mm-hmm. dafa mel ni yokk parce que approche pénale bi la day fausser day fausser la problématique sociale. Mm-hmm. parce que yii c'est des problèmes ay euh, bon nga baal ma français bi. maanaam ay jafe-jafe yoo xam ne vraiment dañ ko dund bés bu ne société bi waaw société bi la saxee dafa sax. ci société bi léegi soo xoolee su saxee su dee fruit rek ngay ngay witt.

les experts du social nous mobiliser les c'est des agents de l'État yoo l'État peut les utiliser pour xam ce lu nous waral une force de proposition yu ànd maintenant pénal bi wax ñu mais ko mais pénal bi c'est dissuasif Moi, ànd ak pénal bi nous ko ñu agir ci société Si ci fànn yi agir éducation parentale agir ci école bi agir ci communauté d'accord, ces sphères religieuses, mhm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont protégés. Mhm. Au nom de la religion, ils utilisent, ils exploitent. Mhm. donc il y a un aspect culturel bi nga ne souvent ça soo culturellement ce qui fait très mal moi, culturellement qui qui soo découvrir bon j'ai travaillé dans le domaine ce qui benn fille bu ñu mais finalement da ngay sax ñoom dañuy comme quoi c'est mon moton. moi, victime ce qui fait très mal Mhm. on a l'impression que mom là. Fait que ba biir ba xam lan la exactement voilà dañ koy ça mm. fait très mal. Mm. soko xolé même traditionnellement da naan ki dafa bon. Mhm. fait que du ci lenn. non fait que mm. malheureusement. Mm-hmm. c'est le contraire. justement. Mm-hmm. et il faut accuser non seulement. Euh, nous euh, l'agent violeur. Mm-hmm. mais aussi la société productrice de délinquants qui violent. <coughs> léegi agir foofu donc pour agir il faudra donc une approche pluridisciplinaire plusieurs pan euh, xam-xam ci société bi ak pàcc yu bari ci société bi ñoy a pour mën dem en profondeur changer yenn culture, yi nga xamni du et donc mm. c'est mm. c'est une approche c'est très complexe donc approche mm. systémique d'al mo mën corriger affaire affaire jërëjëf jërëjëf Issa Ndiaye di formateur conseiller en travail social TNT e jaajëf jërëjëf jërëjëf. waaye itam jaajëf soxna Maimouna Astou Yadd jaajëf. Ah, di présidente jigéen Sénégal bokk tamit ci collectif buy taxaw maanaam di ay soxna yu takku lool ngir xeex ba ñu jox leen seeni i wàll daal tamit jox leen cër mbokk jaa ngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourou Ba ci micro bi technique Aliou Ba Yacine Pi mu nekkoon ci digital.